mi ngi nii toog mi ngi ànd ak Thierno mi ngi nii toog mi ngi àndante ak Aly mi ngi nii toog mi ngi àndante ak Abdou mi ngi nii toog mi ngi àndante ak ki nga xam ne tubaarkalla mooy Cheikh Mbacke Sakho ak Abdou Aziz Kébé di sa di sa doom ak moom jugee Tivaouane mi ngi àndante ak gouverneur de la région mi ngi àndante ak préfet. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخادمه وسلم jërëjëf Cheikhul Khadim jërëjëf Cheikhul Khadim jërëjëf Cheikhul Khadim asalaamualeykum Serigne Mouhamadou Mountakha yow dañu Cheikh Sidi Matar xalif général bu dund yàlla na fi yàgg te wér yow nga xam ne tey ci kàttanu si borom yaa nekk ci bokk kër Serigne Bassirou Mbacké lu Serigne tey président Macky Sall président de la République du Sénégal daf ñu yónni fii ci yow ci Porokhane ne ñu bu ñu ñëwee ne ñu jël. nuyoo bi gën a dent nuyoo bi gën a seen teg ko ci sa loxo ni mu ñëwit nuyu ko xaritam di soppeer di sa rak di sa xarit Cheikh Bass Abdou Khadre di porte parole xalif général pour lu murit mi nga xam ne moom la Cheikh Sidi Matar woo leen bu diisoo ci mbiru réew mi ak mbiru yoon na bu ne ñu lañ la see lañ ko seedeel fii ne booba ba léegi ñu ko sëñ Touba sëñ Cheikh Sidi Matar boole moom ba léegi mosuñoo toog ba moom mu xam soxla Cheikh Bass yitte Cheikh Bass ci moom. toujours moo yitee léegi nag président nee nañu it fonk bis bi ak xam bi mu xam ci tolluwaayu soxna maam Jaara ci diine ji moo tax mu jël délégation bi nga xam ne waa lim nañ ko léegi di délégation bu takk mu ne ma naa ko jiite ñu ñëw toog ci sa wet mu feddali cofeel feddali yëg feddali yakar bu mu am ci yow sëñ Muntaxa sëñ Mouhamadou Muntaxa ngir it jàpp bi nga ko jàpp te réew mi yëpp yëg ko xam ko loolu président rey na lool ci moom nee na it balaa yàgg insha allah fas na ñëw fii ci poroxaan ngir sumb liggéey fii ci poroxaan bi nga xam ne moom la sumb ci capital religieuse yi nga xam ne yépp dañoo am doole ci réew mi mu boole ci poroxaan ñun gouvernement am nee nañ ko saytu lépp loo xam ne jëm na ci courant jëm ci hydraulique jëm ci jëmtuwaay pour maam jaare yi fi nekk jëm ci santé jëm ci éducation ñu defaral ko plan tënk ko lu mu gën a gaaw mu ñëw diisoo ko ak yow taxaw réaliser ko fii ci Porokhane incha allah gannaaw ba nag sëñ bi bi ma waxee yóbbante président sa taalibe sa jarbaat sa doom bi ma doon bëgg maa ngi lay nuyu ñëpp xam nañu ni ma demee ci kër gi bàyyi sama bàyyi Samba Ndaw Jonn nekkoon ca Kajoor ci jëkk a jébbalu ci sëñ Basiru la bokk sama nijaay lenq yow mi yaa ko jox Cheikhul Khadim denc ko mu lu jàmm samay rab ñu topp ci man nga jël sa rak sëñ Abdou moo leen ñaanal jox leen Cheikhul Khadim ñu leen ci leen Touba ñu nii yàlla na yéex Touba ñu mujj Cheikh sama sama nijaay bët gi démb yaa ko jox Cheikhul Khadim ñoo lañ yaakaar suñu famille yëpp nga dénk ma sa doom ma jéglu ci moom sëñ Ahmad Mbacke maa ngi koy nuyu Mustafa Basir yàgg na président nag bu jëlee ndombo tànk bu rëy bi mu jël dénk ma ko yow mii la ko defal defal ko Cheikhul Khadim sëñ Touba suñu yaakaar moo ma doon ñaan képp koo xam ne yaa ngi wuyoo di wuyoo sëñ Touba te nga xam ne président man bi may dénk bi ma dénk mu yow la ko defal ñoo ñëpp ñu ñaanal président jàppale ko ci liggéey bi ba yéeneem ci réew mi xam naa ci dara bu ngeen naa ko fii ma nekk directeur de cabinet mu nekk premier ministre defe naa mooy Macky Sall mooy premier ministre bi njëkk ñëw Porokhane keroog sëñ Moustapha Bassirou moo ko teeru nga toog ci wetam ñoo ngi donc sàkku ñaan nga ñaanal ko ñaanal réew mi ndax sëñ Touba continuer di aar réew mi ba xew ci dëkk yi ñu jege maa leen fu ne du fi agsi nun ci kàttanu suñu borom ci barke Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ak ci barke Cheikhul Khadim Cheikh Ahmed Bamba Mbacke loolu mooy boo mayee rek délégation bi lim nañ ko sànq ministre yi ma àndal yépp ma bëggoon ci ak gouverneur Lamine Sagna ma bëggoon it wax ne doom ci kër gi ambassadeur Abdou Samad Mbacké ñoo ànd président def ko ambassadeur ci wetam Maguette Sey nga xam ne ñoo bokk sëriñ di taalibe ñoo ànd moom mooy ambassadeur conseil diplomatique bu président defe naa loolu laa ci bëggoon a euh, yokk di dellusi di sàkku ñaan pour réew mi loolu la ñu président yónni woon moom Macky Sall di ñaanit nga ñaanal ko ni ko sa mag di ñaanale ni ko sa mag tege ci wetam di Cheikh Sidi yàlla na fi yàgg te wér allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi وصحبه وخادمه وسلم بارك الله فيك جل جلاله